mu ñëw ci commune bi jàppale fekk ci responsable yi fi nekkoon ñëw ànd ak ñoom ñëpp dans l'unité liggéey boobu ñu doon liggéey nag tey jii ba yàlla def ñu jël ko teg ko ci bopp coordination commune bi ñun en tant que ay ndaw dañuy jug pour soutenir ko di wax ni ñoom dañuy sàmm jikko yi sàmm ñu jikko yi nawlawuma leen man en tant que jeune ku mën a taxaw di tuumal état naan ay formation ay góor jigéen jàpp naa ni kooku yow yaay lëma askan xelu askan te tout récemment ñoom ñëpp ñu ngi dem ci ay liste parallèle dañoo waroon a wax ni ñoom ay député lañ bëgg a doon mais suñu diine ji nga xamante ni ñun moom lañu moom moom lañu gëm di alerter tous les responsables yi nekk ci département bi monsieur le ministre Amadou Hott mooy suñu coordonnateur comme ni Maguette Ngom nekkee coordonnateur jeunes yi fii COJER responsable bu jëmaleeti attaque ci Amadou Hott ñun ngay jàkkaarloon ñun ndawi Amadou Hott ku bëggul nag jàppale Macky Sall bu la neexee nga taxaw soi-disant am ñu la yabal ay ex ministre nekk sa ginnaaw ngay fusé Amadou Hott ñun yëmbal li ñu am nañ ko xam caq bi bu ñu fooyee ba ñàkk ko buy dellu fenn yeneen commune lay dellu ku weej laajal ña ko yoroon parcelle tey ñoom ñooy ngemb ay nit ci yembal yëmbal si di ñuy attaqué suñu ministre dootuñu ko nangu tey dootuñu ko nangu ëllëg ku ko defati dinañ dal sa kaw